والقلم وما يسطرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت اللقمان الحكم وليهب المصطفى خير الشيم mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw biñ sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaxa mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko may ko gudd fan ak àggali naalam yépp ci barke cheikhul xadim noonu la ñuy nuyoo kilifa diine yi ci réew mi yépp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal xéewal mbokk yi ñu imaat ñëwaat ak yéen seen émission bi nga xam ne moo di yaru ak yare suñu mbokkum daara sëriñ Mbàkke suran waroon ko taxawee tey yàlla dogal mu am ngànt ñu wuutu ko fi seen mbokk seen xarit al oustaz Omar Sylla ñu war cee dalal waa kuréelu yaatal mbindum alquranul karim ki leen fi toogal nag tey féete ci wàllu communication bi muy sëriñ Mahmoudane Dieng laataa ñuy dugg ci waxtaan wi ak moom xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo sëñ Mahmoudane ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Omar maa ngi lay ziare di eh, également sunu mbokki internet yi nga xam ne ñooy ñooy topp émission bii di yaru ak yare eh, comme ni nga ko waxee ñu baaxoo see ànd ak sëñ Makhtar ak sëñ Mbacke Souran eh, di leen nuyu mboole mboole ñoom ñëpp fu mën a nekk ci Sénégal walla ci bitim réew. di la nuyu yow tamit di nuyu sëñ Maxtaar eh, di ñaan liggéey bi nga xam ne mu ngeen nekk di def muy liggéey bu sunu borom gërëm su ko gërëmee itam teg ko fu yàq agul bi barakat rasulillah jërëjëf sëñ Amar jërëjëf sëñ Mahmoudan ci nuyoo yu am solo yooyu di nuyu itam waa yaatal mbindum alquran comité scientifique ba communication d' organisation ak mbooleem kilifa ya fa nekk yëpp rek ci njiital sëriñ Xaadim Njaay imam waaye di ñaanal alaaji sëriñ sekk ak sëriñ Fallou ak sëriñ Daam Touré mi nga xam ne liggéey bii seen loxo la nekk fépp fu ñu bëgg mu àgg yàlla na ko fa yàlla àggale ndamal alxuraan lañ la yàlla waxoon rek téere baa ngi noonu ñu ko laaj te mooy téere bi nga xam ne mooy ngën ji téere gën téere bu dul moom muy alxuraanul karim sëñ dan ren yaatal mbindum alxuraan ngeen indi ci ay mbir yu bees ñu tàmbalee ko ca formation ba ca Touba tàggat xale yi ci wàllu bind loolu boo ci doon dikkaatal ana nga ñuy wax. waaw xanaa avant tout rek ma associé samay nuyoo ci loolu nga def euh, tàmmale ko ci mboolem mi nga xam ne ñooy njiitu c 3 ak kuréelu yaatal mi alxuraan li ko dalee si PDG bi El Hadj Serigne Seck euh, jaar ci commission yëpp jaar ci coordonnateur bi ak président comité bi Baye Fallou Seck ak euh, sëñ Dame Touré ak sëñ Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo jiite commission scientifique bi ak Serigne Moussa Diop bi nga xam ne mooy président bu jury bi. ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñu ngi si biir comité bi ak commission bu mën a bokk comme ni nga ko waxee euh, yaakaar naa ne am na loo xam ne activité la bu bees loo xam ne jàll na ni nga ko waxee sànq muy formation boo xam ne dañ doon gën a renforcer capacité ñi nga xam ne ñooy ñëw di bokk ci euh, ci concours bi mu nekkoon formation boo xam ne la commission scientifique bu con bu bu comité yaa Mbindum Alxuraan dañ doon ko def ca Touba yaakaar naa ñiy topp ñi faral di topp itam chaîne bi gis nan liggéey bu am am solo boobu nga xam ne def nañ ko fa ak résultat yi fa bàyyeekoo nga xam ne ñoom individuellement bi ñu leen jëlee kenn ku ne ci ñoom euh, wax na njariñ lu ko formation boobu jëriñ muy ab innovation boo xam ne indi nañ ko ci liggéeyu édition ren bi incha allah euh, ñu war nag dëgg malaat liggéey bi comme dooroon nañ ko ci loolu dëgg malaat ko jëm ci li nga xam ne mooy euh, appel à la candidature nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war a pour mën a déposer seen ay dépôt comme ni ko baaxoo di def ngir nu mën leen jël boole leen ci euh, ñi ñuy tànn pour ñu mën a def concours bu ren bi incha allah sëñ Omar. jërëjëf euh, sëriñ Mahmoudane ci leeral yu am solo yooyu jëm ci concours bi ak ni muy doxee mais di gërëmaat aussi compagnie El Hadj Serigne Seck ci participation significative bi muy def jëmale ko ci daara jëmale ko ci alquranul karim muy tàggat ñi nga xam ne dañuy bokk ci mbind mi formation ku ne xam ne ne am lool ci domaine bu mu a doon rawatina ci ndax domaine bu complexe la ngir sew-sew yi ci nekk yoo xam ne yu yu mat di ràññe la di ko xam ngeen jàpp di ci jàppalanteeg dongo yi nga xam ne yàlla dogal na dañoo bëgg a bokk ci concours bi di gërëm borom xam-xam ya fa nekkoon yëpp ñoom sëriñ Mbàkke Sourang sëriñ Sam Mbàkke bu Daaru Salaam sëriñ Seexuna Mbàkke sëriñ Moustapha Diop mi nga tudd léegi di président comité jury bi sëñ Saliou Sall sëñ Saliou Silla borom xam yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ci liggéey bu rafet boobu nga xam ne euh, Abdoul Khoudous Silla ca Daarul Mooti nga xam ne vidéo yi ñuy def nii sax moo koy coordonné di ci def liggéey bu am am solo euh, loolu am na solo sëñ Mahmoud Dan euh, dafa mel ne ren am na coppiku gu bees gu jëm ci concours bi waaw coppiku yooyu coppiku yooyu yan coppiku la waaw xam nga ko wax concours bi wax alquran te yéen yéen ma ko gën a xam yéen jàngkat yi alquran moom suñu borom ba naan ñoo ko wàccee te noo koy sàmm inaa nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun kam euh, ak nu mu mën a mel mooy wàcc di ko defee noonu xaj na dana am ñu koy jaarale ñun nag ñu yaakaar ne danoo ndax sàmm googu mu ne moom moo koy def bu la bu la jagleelee yow nga bokk sa ñam yi jox ab ab yar di la sàmm lool loolu sant la euh, ba waral nag coppite yi nga xam ne moom lañ def ren mooy ginnaaw bi ñu sante suñu borom ci loolu munu munu jagleel ñu ne nag euh, danañ fexe ba candidat yi itam li nga xam ne moom leen daan moom leen daan jox ñu jëm koo yokk mi prix yi euh, daanañ ko def nag ci édition yi jàll daanañ def édition bu ñëw ba ca topp nu gën a yokk prix yi ren nag nu yokkaat prix yi comme ñu ko baaxoo di def kon nu xam ne képp koo xam ne bokk na ci lauréat yi nga xam ne ñooy jiitu muy ñett ñooñu nga xam ne ñooy jiitu ki ci jiitu incha allah ci innovation yi ñu def ren dana am 7 millions 500 7 millions 500 la ñuy jox premier bi deuxième bi am 7 millions troisième bi dana am 6 millions 500 mais ak yokkute goo xam ne jëwriñ ji Alaaji Sëriñ Seck indi na ko ci neexal yi nga xam ne moom lay neexal ñi nga xam ne ñooy ahlul quran ñi nga xam ne itam ñooy bindkat yi. muy lu ñu boole ñoom lu jafe mokkal gi ba pare di ko bind waaw ndax mokkal gi rek alxuraan ak jagleel la waaye itam toog di bind alxuraan te doo ko xool di beneen jagleel la mu xam ne loolu ab coono la boo xam ne euh, ñu mat a ñu mat a encouragé lan ñu mat a jàppale lan ci liggéey boobu moo tax mu ne daal nan jéem a yokk li ñu leen doon jox loolu tamit ñu ko si sant bu baax a baax waaye itam xam ne ak ak jagleel la ko ko suñu borom jagleel ñuy sant rek Mhm. Euh, daray daray cat bañ ko jiitu ci loolu suñu borom nangul ko liggéey boobu daraja alxuraan mi nga xam ne moom lay moom lay moom lay jëfal muy liggéey bu tàmbali nag xam mhm. naa euh, bu ko defee jërëjëf sëñ Mahmoudan xam naa mhm. suñu laaj bu mujj mooy mbirum mbindu mi mbindu mi moom fan la toll ak ku ci bëgg a bokk fan lay jaar waaw mu mel na nag mbindu mi mbindu mi nag kiyagun ko commencé dooragun carrément euh, dépôt yi nga xam ne nit ñi mën nga noo jàpp ne sax danoo door dépôt yi waaye dafa am lu ko daan jiitu fépp fu waaye nekk ci bitim réew wala ci biir réew mi hmm. mën a jëg ne mi ngi bëgg a commencé dépôt yi loolu moo nekkoon euh, bande annonce bi nga xam ne moom lañ daan gis muy jàll xam ne danañ toog benn un mois boo xam ne dañuy yëgle hmm. léegi yëgle boobu nag lan lan nam ma def le 16 incha allah le 16 bii nu fan ak juróom benn ci weeru août bii nu nekk nii su ma juumtee le premier août kon euh, le 16 hmm. août incha allah lañuy commencé def communiqué bi euh, ngir képp koo xam ne bëgg na see bokk yaakaar naa àllarba lay tombeel de. waaw xam naa àllarba lay tombeel waaw. nga xam ne danañ wax itam. ban fànn la ñuy kii mooy ban fànn la ñuy mooy nga jël benn xët bind si lu toll ak fukki bind ak ñaar wala fukki bind ak ñett euh, bind sa tur ak sa adresse sa numéro téléphone. waaye dépose ko nag ci point de point c 3 bu la gën a jege Sénégal waaye wala boo fekkee mënoo ko. nga fexe ba rabita bi wala fédération bi koo fa xam. Mhm. Euh, te jàpp ne soo ko joxee dana ligg dana agsi liggéey bi nga mën ko koo jox. Mhm. loolu daal mooy li nga xam ne am na itam beneen plateforme. boo xam mhm. ne euh, daanañ fa jaarale kii. mooy euh, comme plateforme boobu nga xam ne dañ koo dañ koo dañ koo mettre sur place nga xam ne ku bëgg a bind. ki bëgg bind itam te nekk si internet bëgg koo jaaral si internet bi mën nga faa jaar mooy da ngay def 3W boo defee 3W nga def. candidat point yaatal mbind candidat point yaatal mbind xam naa réalisa réalisateur bi moom lay jàllale noonu si si si kii bi waaw mooy 3W lay doon mhm. point mhm. candidat mhm. point yaatal mbind moom moom la réalisa réalisateur bi sëñ Moustapha di jàllale noonu si si si écran bi waaye itam képp koo xam ne itam bëgg nga ci beneen leeral ak foo mën a toog bokk si Sénégal mën nga woote itam si numéro téléphone yooyu di jàll si écran bi muy 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 mu mel ni itam daanan gis si wàllu euh, sud bi mhm. mooy ay fu mel ni ay maatam ak Ourossogui euh, ak euh, Ziguinchor ak yooyu ñoom tamit seen bokk da daan am solo mhm. ñoom tamit ku ci bëgg a rek mën ngaa dem budug C3S bi bi nekk Ourossogui bu mhm. fekkee côté boobu moo la gën a jege wala bi mhm. nekk Ziguinchor mhm. wala bi nekk itam Tamba wala nga jokkook Serigne euh, Ousmane ja ci numéro boobu di jàll ci écran yi hmm. sëñ Ousmane Dia moom di ko jàmbaare ci liggéey bi nekk euh, Ranérou ci numéro boobu di jàll di 77 784 15 46 sëñ hmm. Ousmane Dia loolu daal xanaa euh, sëñ Omar hmm. mooy li nga xam ne matoon naa jàllale xaj na la ci mbirum lu jëm ci liggéey bi di yaatal minam alxuraan dëgg la namoon ko partagé ak yéen macha allah jërëjëf sëriñ Mahmoudane ñu ngi lay sant di la gërëm bokk ci nga xam ne mooy accompagner euh, comité scientifique communication Euh, comité bi nga xam ne moo yor wàllu communication ci kuréel gi di jàmbaar ci liggéey bi di leen ñaanal rek dan ni ñu ko tàmbalee yàlla nañ ko àggaleeg alhamdulilahi rabil alamin te yàlla def ci ndam comme na mu defee woon ndam cay jiitu woon waaye di ñaanalaat alaaji sëriñ sekk ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéeyu alquran bi di liggéeyu diine di liggéeyu yàlla alquran a ngi noonu mbokk yi wa innahu la dikrun laka wa li ka wa sawfa tusaluun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بنعمة ربك بمجنون